mu mel ne loolu ñu doon waaj lu mu gënoon euh, tàng ak lu mu gënoon doy lii ñuy waajaat moo gën a yéeme ndax actuellement nii ñëpp woote nañ kenn ku ne nga war def nga ko waaye li ñuy xaar muy résultat yi actellement ni benn xelu Sénégal dellu benn xelu Sénégal dellu moo xam ñu nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk bitim réew ñii liggéey tamit seen xel dalul ak fu mën a nekk sa xel li fekk joxe guñu résultat yi définitif bañ xam ba xam kii gañe gañe na wala bëgg deuxième tour day am donc kon amul kenn koo xam ne xelam dal na te comme magistrat bi ki nga xam moo leen jiite muy président ki nga xam moo leen jiite barki dem génn na nee na ke amul kenn ku mën a joxe résultat ku dul ñoom donc kon gët yëpp ak nopp yëpp ñu ngi ko dëgmal ci magistrat yooyu wala boog ñoom ñi nga xam ne ñoo yor commission bi te war a joxe maanaam résultat yi te loolu incha allah dañu wax ne gannaaw suba lay doon yaakaar naa vendredi donc kon xelu benn xelu sénégalais boo xam ne actuellement dal nga amut moo xam ci parti pouvoir la moo xam ci opposition bi la ci donc ne ci moment boobu AES la mu waxoon rek avant élection yi ñëw ci biir campagne bi mooy dañoo waxoon ne euh, ñi ngi digal candidat yi ñu woote ñu ñu def seen campagne ci jàmm ak salaam mu mel ne loolu xëy na def nañu ñu waxoon ne les électeurs nañ woote jàmm ak salaam bañ kenn ku leen def corruption électorale kenn ku leen jënd mel def nañ mu desoon ñu waxoon commission yi ñi nga xam ñoom yor commission yi ak dale ko ministre de jaar ba ci maanaam euh, magistrat yi ko yi nga xam ne ñoo war a saytu ba àgg ci conseil constitutionnel mel ne kon bal bi léegi seen camp la des bal bi léegi mi ngi des ci camp commission bi mooy Sénat ak ñi nga xam ne ñooy magistrat yi war a xool mbir mi ba jébbal conseil constitutionnel kon dafa mel léegi Sénégal yi wàccoonte nag la nga xam ne moom la leen seen réew joxoon mooy ñu dem woote jàmm ak salaam kon li des mooy magistrat yi magistrat yi actuellement nii nag mooy mooy commission bi euh, ba ci jaar ci ministère ba àgg ci conseil constitutionnel dafa mel ne actuellement ni ñoo des ñoo ci mën a des ci euh, sargal seen réew ñoo ci mën a des ci siggilaat démocratie Sénégal ñoo ci ñoo ci mën a des ci mën a jàmm ji Sénégal mas a am ñu mas koo ko xamee donc ñoom rek ñoo ci des actuellement nii pour mën a sauver réew mi di Sénégal moment boobu nag AIS li muy wax te waxoon ko te yàgg prévenir ci wax mooy waxoon naa ko mu gën xamoon naa ko waxoon nañ ca avant élection yi ñëw ci biir campagne bi ne euh, rëcc rëcc bu mën a am ci ministre de l'intérieur rëcc rëcc bu mën a am ci commission yi rëcc rëcc bu mën a am ci ñiy wàññi nañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo war a joxe résultat yi maanaam euh, définitive yi wala boog maanaam ñi nga xam ne ñoom war def déclaration bi ba àgg ci constitutionnel dañ fexe ba rëcc rëcc yooyu am yëpp ci yoo xam ne yu jaarul yoon ak lu mat doon nañ fexe ba taawu réew mi tinu réew mi tinu réew mi ni ñu koy tinoo nag ni ñu mën a tinoo réew mi ba guute gi nga xam ne ñëpp a ngi tëj bët moo xam bitim réew la wala biir réew mi ñëpp tin nañ ñëpp jàpp nañ ba xam bu ñu joxee résultat yi nan la mbir nan la nan la mbir bi demee waaye damaa jàpp n bu fekkee résultat yi joxoon nañ ci dëgg ak ak maanute bu ñu ko joxee maanaam seeraloo yàlla sunu borom subhanahu wa seen diggante waaye seeraloo réew mi ak seen conscience li ñu def bu ñu ko joxee bu fekkee ne wax nañ jiw a gañe te la la loola lañ loola joxe mu dëpp ak loolu jàpp naa ne lu waaye mën a mer tamit duñ duñ duñ am jafe ñoom duñ am jafe waaye bu fekkee ne tamit ah, maanaam diw ma gañe dañ koo dañ maanaam dañ ko faral wala diw ma gañe dañ koo am faneen suñ ko jaarale ba ne diw moo gañe jàll na te te fekk loolu amut nekkul ci PV yi. nekkut ci li nga xam ne moom la Sénégal yi doon saytu dama jàpp ne boobaa mënuñoo set te boobaa dañuy dugal réew mi ci guuta dañ koy dugal réew mi ci guuta kon lay tax réew mi dugg ci guuta AES mi ngi ko waxaat mooy nañ fexe ba ñoom ñi nga ne tey yi art na ministre de l'intérieur nañu wax ñu artu leen Sénégal bi bëgg wax ñu ne nañ bàyyi ba ñoom kon ñoom rek ñoo ci des actuellement ñoom ñoo mën a tiinu réew mi ni ñu mën a tiinu mooy fexe ba wax dëgg fexe ba li urne yi joxe fexe ba li Sénégal yi maanaam joxe ci urne yi ñu wàññi ko te nekk loo xam ne kenn ku ne wax nañ candidat bu ne yor nga sa PV nañ fexe ba loolu ñu respecté ko jox yi buñ ko xasee ba jox Sénégal seen jàmm waaye buñ ko defu bu ne wala yaasu lañ koy waxee ndax waxoon nañ ko avant campagne yi dañ koy mooy bu fekkee loolu ëllëg li xew ci réew mi wala yaasu billahi kenn mënu ko xam ndax nit ñi bu fekkee lañ gën a fonk muy seen i carte lañ gën a seen voix te loolu lañ wax ne moo leen boole ci réew mi moo tax ñu am àq ci réew ñu tuddee ko maanaam devoir civique donc def nañ ko buñ ko defee par na képp ko bëgg a xëcc wala nga bëgg leen ko manam manam manam xañ boba lu ne mën na am ndax lool da daanaka moy seen xol moy seen avenir moy seen lepp lu mën doon kon ñi ngi waat magistrat yi ni ko xam demb kañ ñi wax nako ba nit ñi xaw am xel mu dal nañ fexé ba nonu ma ko waxee continuer ko nonu fexé ba résultat yi ñu jox ko ci maanute fexé ba jox ko ci transparence té baña faral kenn ndax ñom population bi mo leen wara gënal ku mu di doon mo leen wara gënal président de la république mo leen wara gënal opposition bi la war a def mooy xool avenir Sénégal ndax fii jamono toll ak réseaux sociaux yi ak mondialisation bi nga xam dara umpetul wala yaas billahi taala bu fekkee nañu war a def defuñu ko mën nañoo taal réew mi kon nag liñ leen woowaat mooy magistrat yooyu nañ fexe ba vendredi soir li ñu wax ne minuit danañ joxe résultat yi nañ fexe ba sàmmonteeg seen diggante seen borom subhanahu wa taala waaye nañ fexe ba sàmmonteeg con maanaam confiance bi leen réew mi jox fexe ba bañ a trahir fexe ba joxe résultat yi na mat sëkk ku gagné ñu xamné ya gagné ku perte ñu xamné ya perte waaye dañ xol seen diggante seen bopp loolu jàpp naa bu ko défé réew mi di Sénégal dañ continuer diko naw ci daal démocratie dañ continuer diko ñaw ci stabilité bam am dañ continuer di naw ci né Sénégal ke réewum jàmm réew réewum paix sinon loolu boobu li yeesu lee tax la AIS mi ngi wax né ëlëk lu xew ci réew mi na leen na ñoom ñoo gàdd responsabilité donc nak loolu lañ wax di woowat Sénégalais yi di woowat ñëpp population bi askan wi ne ñëpp ànd ak dal bañ joxe résultat yi buñ joxe résultat yi en tout cas actuellement ni bañ bañu ak léegi yàgg na ñi ñëpp xam nañ kenn ku ne tendance yi nga am ñëpp kenn ko ne xam ne pourcentage bi nga am bokk donc nañ tey déglu rek ñoom ñoo war a àtte bu ñu joxee résultat yi lay dëgg Sénégal yi xam nañ ko loolu dëgg Sénégal yi xam nañ ko boobaa nag ñu doog mën a waxaat leneen la ñuy wax waaye en tout cas bala ñu àgg foofu ci guuta AES mi ngi yëkkati kàddoom ne ñooñu ñu commission bi nañ fexe ba respecté Sénégal yi respecté liñ suñu choix waaye respect norme démocratie ba nga xam ne bëgg lépp dana ko am donc daal loolu mooy message bi nga xam AS doon na ko woote di ko joxe fii ci dëkk bi Touba ndax ñun képp ku ñu xam xam ne dañuy woote ci lépp loo xam day indi ak dal ci réew mi ak di indi ak jàmm ci réew mi ndax fexe nañ ba tarix yëpp ànd nekk benn donc li ñuy jeexale déclaration bi nag mooy ñu fa ñu bañ a fexe ba élection yii nga xam ne am na ñu bañ koo jëmale ci wàllu ethnie ñu war ñu résultat bañ ko jëmale ci wàllu ethnie bañ ko jëmale ci wàllu confrérie ndax loolu garaaw gar ndax dégg nañu ay déclaration xam ba ci am na fi donc loola dañuy wax ne ña ko def benn dañoo xamul réew mi ni muy doxee wala bëgg bëgguñu ñu jàmm réew mi ndax boo tuddee euh, ab dëkk tudd aw maanaam tudd ab communauté da lay wóor ne yaa ngi bëgg a indi aw ay wala yes bi lay dans la donc AS mi ngi woote ne résultat yi wala boog élection yi du élection ethnie du élection confrérie élection yoo xam ne kenn ku ne muy président la ña ko ay murite nga ca ay tijaan ay xaadira nga ca ay chrétien nga ca naka la opposition ñu lay wóotal ay murite nga ca ay xaadira ay chrétien nga ca waaye même loolu bu jàllee ay joolaa nga ca ay séeréer nga ca ay wolofa nga ne ah, la donc kon bëggum nit ñi mukk jëlee def ko wàllu ethnie wala wala confrérie donc dañuy wax ne ñi koy war a jëri noonu dañ leen war a jàpp yóbbu leen ci wàllu yoon ndax kat réew mi jàmm ak nañ ci mas ñu dund ci constat pacifique donc loolu la ñuy woote ne bu ko kenn yàq ñi ko nar a def nañ leen maanaam maanaam bu ñu am rek jéggal nañu jéggul nañ déedéet nañ leen kenn du ñemee wax lu mel noonu donc daan kon lii mooy déclaration AS doon na ko fii ci diwaan Touba di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu